Sofi demande de régularisation par voie de bail sur le TF numéro 13 542 Dakar Gorée Monsieur je viens par la présente solliciter auprès de vos services la régularisation par voie de bail et à profit mu ne moom mi am kër xam nga booy booy wut kër sax léegi dañuy ndax am nga kër ba pare ñu jox ñu amul kër loolu loolu mooy SICAP ay HLM dañuy laaj ndax am nga kër fenn moom am na kër ba pare SICAP muy demandé wax domaine gi ma ñu jox ko fa terrain déglu de. mu ne et de terrain sise à la zone dite du CICES à distraire du morcellement du 13 592 NGA Ngor Almadi ex-TF 6226 Dakar Gorée. la propriété exclusive de l'État du Sénégal et est libre de toute occupation légale ou irrégulière. Sachant compte de votre diligence, je vous prie, monsieur, de couronner l'expression reçu le 30 novembre 2015 euh, CFS Ngor Almadies bureau des domaines léegi lii lu muy wane. mais même même tuuti rek que moom li ko intéressé mooy sàcc. maître nga fii nii terrain bii nii xam nga lu mu demee xam nga lu wax Mamadou Diallo grand dafa mel ni terrain bu ma làqoon xam nga boo ñoom domaine ak waa CADAS ñooy xam terrain état bi état bi doo xam ay terrain sax ndax kenn umpalewul ni moom moo doon courtier Tahibou Ndiaye mi ñu fi arrêté woon ba bi ñu ko jàppee Tahibou Ndiaye dafa tax ne waruñu jàpp Tahibou Ndiaye. Bayrou Ndiaye taxaw devant le juge Sénégal yi bu ñu ko fàtte ñun directeur yëpp ay milliardaires lañ moo ko wax de je me rappelle très bien. d' accord léegi maître ensuite léegi. maître li ma rek boo wane preuve yi may joxe. maître war nga ñu ay preuve war ñu ay preuve. mais ma ñëw question bi ma lay laaj léegi léegi question bi ma lay laaj. Hmm? Euh, maanaam nan nga jàngatee tey kaddu euh, Mounirou Sy nga xam ne xelam dafa màcc ci wàllu yoon mu yëkkati ko ni euh, Sonko wax na ni dina yóbbu ci yoon commission d'enquête parlementaire alors euh, ñu gis ni député en exercice mënuñu ko